alors donc ñu continuer ci deuxième partie bi donc bu ñu seetloo dans la première partie ci première partie bi njëkk def joxe woon nañ définition lan mooy informatique c'est-à-dire ne nañ mooy traitement automatique de l'information boo demee ci américain yi ñuy wax computer science euh, des ordinateurs ou euh, mais dafa am benn incompréhension buy faral di am te des fois donc du ma wax sax ñàkk xam la mais jaawale la donc te pour expliquer incompréhension boobu damay joxe euh, benn exemple donc dama amoon benn xarit boo xam ne nii euh, ñoo bokkoon école bu ñu nekkoon bokkoon classe moom euh, mu jóge woon seen beneen pays ñëw Sénégal di jàng si mais ba muy ñëw def na ba mu ñëwee Sénégal def na fi 5 ans d'études en informatique ba mu defee étude informatique ba pare mu ñibbi seen dëkk après euh, muy waxtaan après ñu laaj ko nag ni ko yow depuis 5 ans yëpp lan nga doon def mu ne leen man dama doon def étude en informatique mais à sa grande surprise li ko gars yi wax mooy. mais am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne ñii def nañ informatique mais defuñ 5 ans ils l'ont fait en def nañ ko ci quelque mois tu donc ñooñ li ñu doon wax c'était affaire bureautique la woon donc du coup nit ñi en général dañuy faral di jaawale euh, bureautique informatique ak réseau. développeur donc dañu faral di jaawale affaire yu bëri donc buñ la boole leen informaticien la rek dañuy foog ne tu peux tout faire mun nga def lépp mun nga def maintenance mun nga def réseau alors que affaire yi dafa bëri ay pàcc ci biir donc loolu nag la ñuy jéem a essayer expliquer leen ci euh, ci ci partie bii nii donc informatique boo xoolee dafa regrouper ay domaines yu bëri c'est-à-dire regrouper na science euh, la science c'est-à-dire domaine scientifique domaine technique ak domaine domaine industriel et après mun nañoo séparer mun nañoo xaaj informatique en deux branches ci ñaari pàcc c'est-à-dire théorie ak pratique donc théorie mooy ñi nga xam ne ni dañuy xalaat ci yenn technologie yi bind ko proposer ko ñoom ñooy définir ay concepts ak ay modèles donc ñooñu la ñuy wax les théoriciens de l'informatique donc le plus souvent euh, ils font de la recherche donc de passage maa ngi saluer sama benn sœur bu ñu wax Aram donc elle est doctorante en intelligence artificielle donc ñoom ils écrivent des des des articles ils des sujets dañuy wax waxta dañuy xalaat ci ay sujets pour génne des articles pour proposer des modèles pour faire avancer la science beneen partie bi moo nekk ñiy def pratique mais ñi def pratique nag dañuy sukkandiku aussi ci ñi nga xam ne dañuy def théorie donc ñi def pratique nag mooy ñiy def lu concret loo xam ne dañ koy mën directement donc mooy les techniques concrètes de mise en œuvre donc ñooñu mooy ñi def pratique euh, donc am na informatique boobu noonu nga xam ne dañ koy jàng école c'est-à-dire discipline la ñu jàngale à l'université ak informatique bi nga xam ne nii dañ koy appliquer à l'industrie dans l'industrie donc moo tax dañuy wax terme bi nii ñu naan technologie de l'information et de la communication donc bu ñu la boo déggee technologie de l'information et de la communication rek xamal ni c'est l'informatique appliquée à l'industrie donc pour créer ay affaires pour defar ay mbir donc du coup dafa regrouper nag connaissance scientifique électronique ak la télécommunication ah benn mot bu bees ñëw na c'est-à-dire la télécommunication alors lan moo nekk communica télécommunication donc télécommunication c'est la transmission à distance d'informations de données Euh, avec des moyens à base électronique donc bu ñu waxee transmission mooy transmission mooy jokkalante c'est-à-dire jokkalante ay matériel électronique yoo xam ne nii dañoo nekk a distance lan la ñuy jokkalante ay données ay informations mais informations yi dañ koy jokkalante à travers ay fils mun na nekk ay fils mun na nekk euh, mun na nekk des lumières mun na nekk aussi euh, mun na nekk ay wifi comme yu ngeen ko xamee et tout ça donc du coup bu ñu waxee transmission de données entre des appareils euh, électroniques rek xel yëpp dina dem ci wàllum sécurité donc mu ngi mel ni tey ma am samay bagage ñu war a jógee Dubaï. suñu waree jógee du Dubaï ñëw Sénégal bagage yooyu dañ koy sécuriser dañ koy def emballé def ko ba mu baax parce que fi mu war a jaar yëpp war na jaar ci géej gi peut-être ci avion bi donc dañ koy emballé ba mu baax ba nga xam ne nii bu yegsi ci man dina dina nekk même objet bi du yàqu du am benn problème comme ni ma ko jëndee à distance donc c'est ça la sécurité aussi de l'information naka la ñuy def ba sécuriser information bi donc concept yëpp nag après dinañ si ñëw yooyu noonu ay sécurité informatique ak télécommunication dinañ ci ñëw ci yeneen épisode yoo xam ne ni euh, dinañ ci waxtaan plus largement mais euh, on parle là aussi danañu wax aussi ci mbirum lan mooy internet euh, voilà on en profitera pour wax ci loolu yëpp alors donc li ñuy wax TIC moo nekk technologie de l'information et de la communication c'est-à-dire dafa regrouper connaissance scientifique électronique ak télécommunication alors nag dañoo war a utiliser les métiers du TIC pour ay domaines pour aider ay domaines mais domaines yooyu yan domaine la c'est-à-dire domaine de la santé domaine de l'éducation domaine de l'agriculture domaine de l'élevage la pêche le transport le commerce y en a dafa bëri y a la culture le sport l'armée l'industrie donc yooyu yëpp mën nañ ci utiliser les métiers du TIC pour faire avancer ces domaines la alors nag dinañ citer quelques domaines expliquer leen yan euh, yan métier yan branche de l'informatique la ñuy utiliser pour yooyu mais bon dafa bari donc mënuñ citer lépp lépp lépp mais jama dama tànn yenn yi yoo xam ne nii euh, yaakaar naa ne moo gën a am solo donc boo xoolee dans le domaine de la euh, de la santé mun nañ utiliser lu ñuy wax informatique médicale informatique médical c'est quoi c'est-à-dire c'est la manipulation des images médicales donc xoolee image médicale c'est-à-dire bu ñu waxee image médicale mooy scanner yi échographie yi ak yu ni mel c'est-à-dire naka lañ koy def de telle sorte que dañ koy mën a manipuler mën def ay diagnostic yu yu yu gën a yu donc loolu mën na nekk l'informatique médicale il y a aussi lu ñuy wax bioinformatique bioinformatique ay outils la ay outils d'aide la pour la recherche biologique bu waxee recherche biologie nag mooy recherche yi ñuy def ci les êtres vivants moom na nekk ay êtres vivants ay nit mën na nekk ay rab. mën a nekk ay garab te boo xoolee aussi euh, day daal aussi domaine pharmaceutique parce que boo xoolee garab yu bëri ñu ko defaree ci ay euh, ci ay euh, ay garab ak ay ay ay ay garab ay fleur ay voilà genre demee noonu donc la bio bioinformatique aussi mun na participer ci domaine pharmaceutique bi y a aussi l'agriculture et l'élevage bioinformatique aussi mun na ci participer c'est-à-dire croisement yi ñuy def par exemple pour génnee euh, yeneen yeneen yeneen yeneen euh, façon euh, jiw yu bees wala jiw yoo xam ne ñoo gën a efficace donc mun na laal informatique aussi pour dimbale l'élevage tu donc y a aussi lu ñuy wax robotique robotique c'est quoi robotique comme ni ñu ko waxee en français c'est l'ensemble des technique pour le pilotage des machines autonomes c'est-à-dire des naka la ñuy piloter ay ay machine yoo xam ne nii mën nañoo demal seen bopp c'est-à-dire dañuy créer ay machines yoo xam ne nii ils peuvent faire des tâches eux-mêmes mën nañoo def ñoom seen jëmmi bopp ay tâches donc comme exemple bu ñu bëggee utiliser robotique ci agriculture mën na nekk arrosage des des champs cest à nga war a arroser nga régler ko de telle sorte que pour telle heure jotee rek arrosage bi commencé am na ay robot yu koy def mun nañu wax aussi surveillance euh, du bétail c'est-à-dire naka ngay def ba takkal sa bétail yi ay ay ay ay ay yoo xam ne ni fuy munti dem da nga leen géolocaliser di leen gis am na aussi ak ay bureau c'est-à-dire euh, tey am na ay robot yoo xam ne ni dañ leen teg ci bureau yi pour que ñuy euh, accueillir yenn nit yi di leen orienter fii ngeen war a dem voilà euh, tel bureau fan la nekk mën la ko indiquer tout ça am na aussi lu ñuy wax domotique moom dafa différent ak robotique domotique dafa boolante électronique génie civil automatique automatisme de l'information boolante aussi télécommunication et loolu yëpp c'est pour gérer ay tâches yoo xam ne dafa nekk ci biir kër gi wala ci entreprise bi wala ci hôtel bi mais yan tâche la c'est quel genre de tâche donc mun a nekk chauffage par exemple tàngaay bi ak seddaay bi naka lañ mun def ba réguler ko de telle sorte que dafay automatique mën na nekk ouverture des portes par exemple nga jub sa sa buntu mu ubbeeku ci vois te doo ko laal doo def dara mun na nekk aussi euh, loolu yëpp ci domotique la bokk ah. mun na nekk aussi économisation de l'énergie par exemple nga dugg sa néeg lampe bi tàkk mais boo génnee day fayal boppam donc y bokk beaucoup beaucoup am na aussi sécurité alarme tu vois commande à distance nga toog sa bureau mën a fay sa lampe kër yi mën a ubbil ubbi sa buntu kër yi pour am livraison booy jël et tout ça mën na nekk aussi dans les hôtels wala dans les lieux publics mooy voilà lieux publics fay lampe yi à distance caméra de surveillance yi ak genre yu demee noonu donc wax nañ bio informati wax nañ euh, informatique médical wax nañ bio informatique wax nañ robotique wax nañ domotique am na aussi bureautique bureautique nag moom je pense que ñu bëri xam nañ ko moo nekk outil yi nga xam ne daf ñuy dimbali suñu travail au bureau tu vois c'est-à-dire euh, pour bind ay texte édite tey image ak genre demee noonu am na leneen lu ñuy wax aussi informatique de gestion utiliser euh, dans tous les domaines informatique dañ ko utiliser domaine yëpp parce que informatique de gestion parce que c'est un ensemble de connaissances yoo xam ne nii ak ay outils informatiques pour gérer des grandes quantités de données pour nga mën a gérer ay euh, données yu bëri c'est-à-dire mën na nekk ay liste des clients samay fournisseur samay produits ak genre yu demee noonu donc loolu mooy informatisation et dañ koy utiliser euh, ci ci voilà ci pàcc yu bëri am na aussi lu ñuy wax informatique décisionnelle moom la ñuy abrégé BI informatique décisionnelle lan mooy informatique décisionnelle ay outils la ak ay méthodes yoo xam ne dañ koy utiliser pour collecter c'est-à-dire dajale ay information yu ci entreprise bi pour lan pour aider dirigeants yi ñu am benn benn gis-gis bu yaatu ci entreprise bi ni muy doxee mais aussi données yooyu ñuy collecté mu mun leen aider mun leen dimbale pour seen prise de décision c'est-à-dire ñu mun a jël ay décision anticiper même yenn problème yoo xam ne ni dafa war a am ci dafa mën a am mun na xew ci entreprise bi donc loolu mooy informatique décisionnelle y a aussi euh, quelque chose boo xam ne dafa nekk sax en vogue dafa xew c'est-à-dire l'intelligence artificielle c'est quoi l'intelligence artificielle <clears throat> l'intelligence artificielle c'est un ensemble de théories ay théories la c'est-à-dire ay xalaat ak ay techniques yoo xam ne nii dañ ko mettre en œuvre pour réaliser des machines yoo xam ne nii mën nañ toppandoo euh, xalaatu nit mën nañ toppandoo intelligence su nit c'est-à-dire mën nañ agir comme des nit di xalaat donc loolu mooy intelligence artificielle donc damay def tënk rek pour que ñu bañ a euh, guddal. donc am na aussi lu ñuy wax cryptographie. c'est quoi la cryptographie cryptographie moom tamit euh, ay technique la yoo xam ne nii day permettre ñu chiffrer ay information euh, pour de telle sorte que nit ñi duñ ko mën a gis wala buñ ko gisee aussi duñ xam lan lay tekki tu vois donc loolu dañ koy appliquer souvent ci euh, entreprise données yi nga xam ne nii dafa dafa dafa dafa dafa confidentiel cryptographie donc l'applique ci affaire militaire donc ci affaire armée bi wala ay protection de de vie privée ak genre yu demee bëri na donc bëri na domaines yi nga xam ne ni mën nañ ci euh, mën nañ ci appliquer informatique euh, et c'est très large donc dafa bëri donc dinaa joxe aussi benn benn benn bonus bu ndaw c'est-à-dire c'est-à-dire les métiers les métiers de l'informatique yàlla mooy métiers yi donc métiers yi boo xoolee mun nañ ko diviser en trois parties je pense c'est-à-dire ñiy def conception ak développement ñi nga xam ne dañuy gérer di piloter ak ñuy gérer wàllum sécurité par exemple boo jëlee ñi nga xam ne ñooy concevoir di développer mun naa jël par exemple développeur lan mooy développeur da ngeen di dégg ñuy wax métier de développeur dans l'informatique et tout ça mais lan mooy développeur développeur c'est un informaticien mais un informaticien qui réalise des des logiciels donc des logiciels et des applications à partir de ay cahier de charge c'est-à-dire dafa am client buy ñëw jox ko ne ko man lii ak lii laa bëgg nga defal ma. moom mu defar ko à partir euh, des langages informatique day utiliser lu ñuy wax ay langage informatique pour écrire ay code pour créer benn application buy répondre à un besoin précis donc loolu mooy euh, loolu mooy informe développeur du moins après développeur il aussi lu ñuy wax euh, ingénieur informaticien Donc ingénieur informaticien, c'est différent de développeur parce que ingénieur informaticien, c'est un généraliste. Il est responsable de la conception, mooy concevoir, c'est-à-dire mooy tëgg affaire bi, moo koy développer, euh, mooy assurer après maintenance bi, donc des applications dans une entreprise. Donc moom c'est différent de euh, développeur, il est généraliste. Am na aussi lu ñuy wax euh, chef de projet. Donc chef de projet moom boo xoolee ingénieur yeeg voilà développeur yëpp moom mooy ëmb cest a dire moom mooy euh, définir projet bi les périmètres voilà cadre affaire bi moom aussi mooy gérer euh, lu ñuy wax les livrable mooy li nga xam ne nii moom la client bi soxla mooy produit fini bi moom moo koy livrer client bi moom mooy voilà c'est lui en général mooy gérer projet bi yëpp ko voilà. Après euh, les chefs de projet en informatique il y aussi des ingénieurs en informatique industrielle boo xoolee ñooñ dafa nekk ay yoo xam ne dañoo boolante électronique ak informatique appliquée à la production industrielle c'est-à-dire lépp li nga xam ne nii dañ koy produire industriellement ñoom ci wàll boobu la ñuy gën a yëngatu am na aussi lu ñuy wax des ingénieurs en big data loolu aussi dafa important ñoom boo xoolee dañuy euh, dañuy développer dañuy mettre sur place ay outils ak ay infrastructures yoo xam ne nii dañ koy utiliser euh, équipe data science yi dañ koy utiliser pour analyser ay données c'est-à-dire pour faire des données ay données nag yu bëri lay doon donc ñoom dañuy veiller à ce que euh, données yi ñu sécuriser leen optimiser leen mais aussi solution yi nga xam ne ni moom la ñuy joxe mu performant donc ñooñu mooy les ingénieurs en big data après il aussi les ingénieurs en intelligence artificielle donc intelligence artificielle waxoon nañu tuuti sànq ci ginnaaw donc ingénieur en intelligence artificielle nag ñoom euh, dañuy intégrer dimension humaine dans l'élaboration de leurs produits technologiques c'est-à-dire su ñuy créer ay produits dañ ciy intégrer dimension humaine c'est-à-dire il intervient dans la conception d'interface dañuy euh, dañuy intervenir bu ñuy defar ay interface yoo xam ne nii day raisonner comme ay être humain cest yoo xam ne ni dañuy xalaat comme ay nit donc ñooñu mooy euh, ingénieur en intelligence artificielle am na aussi ñu ñuy woowee les architectes fonctionnels du système d'information donc ñooñu seen rôle rôle conseil la donc euh, tu vois dañuy conseiller dañuy concevoir aussi ay ay système d'information c'est-à-dire naka la ñuy euh, organiser information bi voilà ci biir entreprise bi et tout ça ñoom euh, loolu la ñuy gérer aussi dañuy def de telle sorte que aussi système d'information bi pacc yi nga xam ne nii wala wala wala éléments yi nga xam ne ni ñoo ko dañuy cohérent donc dañuy gérer ñoom aussi dañuy veiller à ce que éléments yi du système d'information ñu cohérent yaa y a aussi les architectes réseau donc ñooñ ils sont spécialisés en informatique et en télécommunication dañuy permettre entreprise yi ñu mun a am ay réseau yoo xam ne dañuy communiquer entre ñoom seen biir à dire ci biir entreprise bi te communication interne mais aussi yombalal leen fexe defal ay ay ay ay ay ay euh, installation yoo xam ne dañuy mun a communiqué ak ñi nekk ci biti en dehors de l'entreprise ñi nga xam ne ni nekkuñ ci biir entreprise bi après ñooñ am na aussi ñu ñuy wax les UX designers ak les UI designers donc ñooñ boo xoolee ñooy gérer tout ce qui est interface graphique c'est-à-dire ñoom ñooy xool ergonomie li nga xam ne ni moom la utilisateur bi di gis apparence bi c'est ñoom ñoo koy gérer donc ñoom ils sont souvent basés ci expérience utilisateur bi pour faire des choses beaucoup plus intéressantes proposer utilisateur bi des interfaces beaucoup plus faciles à comprendre donc ñooñu mooy les UX designers ak les UI designers dañuy gérer aussi clarté navigation c'est-à-dire bouton bi lay bës après bouton bee door ñëw wala ci boo xoolee seen site web yi wala si application yi donc ñoom ñooy gérer euh, clarté navigation bi nga xam ne ni day day facile à par euh, l'utilisateur final. donc après développeurs yi ak concepteurs yi mun nga am aussi ñi nga xam ne dañuy gérer di piloter donc comme ñooñu mën nañ ci euh, lim par exemple les administrateurs de base de données ñooñ boo xoolee. Euh, ñoom ñooy responsable yi information buy jaar yépp ci entreprise bi toutes les informations donc ñoom dañuy définir euh, dañuy dañuy gérer système d'information système euh, de données bi ay ay SGBD lañ koy wax pour rendre ko accessible pour que ñëpp mun cee jot mais aussi information bu ñuy jot aussi mu utile dañ koy structurer ba nga xam ne ni tamit day utile c'est-à-dire ñoom il gère tout ce qui est donné dans l'entreprise. On na aussi ñuy wax des data analystes, des data scientists, donc beaucoup de terme il y en a beaucoup, des consultants IT. Bon, les consultants IT aussi, c'est important. C'est-à-dire, nous, et conseiller les Nous, accompagner yi pour ñu mun a comprendre les technologies UBC, pour mun nous euh, gën a gën a gën a gën a gaawal seen liggéey gën a performant ci li ñuy def donc ñooñu mooy nekk les consultants IT. am na aussi euh, di ngeen di dégg sûrement les chefs digital officiers ñoom boo xoolee ñooy occupé wu ci transformation digitale entreprise yi c'est-à-dire bu fekkee dafa am benn entreprise bu nekk nii tey entreprise bi ñoom dañ naan liggéeyee d'une manière euh, archaïque c'est-à-dire loo xam ne dafay yàgg bu ñu bëggee nag yeesal seen liggéey avec xarala yu bees yi avec technologie yu bees yi donc loolu c'est le rôle des chefs digital officiers donc ñoom ñooy loolu mooy transformation ñoom ñooy gérer. transformation digitale euh, des euh, entreprises y en a beaucoup bëri na donc bu ñu ko lim tey du jeex am na aussi des responsables télécom des responsables des opérations de production am na aussi euh, euh, des responsables techniques tu vois am na aussi des euh, scrum master am na aussi des product owner des product manager donc y en a beaucoup donc métiers yi am autour de l'informatique dans les entreprises dafa bëri ok am na aussi ñi nga xam ne nii dañuy ñoom ñooy gérer tout ce qui installation mais aussi assister les gens mun nañ ci citer les domoticiens donc domoticien euh, métier la boo xam ne nii dafa laal ci affaire objet connecté ñoom dañuy installer di assurer maintenance système informatique yi nga xam ne nii day rendre bâtiment yi intelligent bu ñu waxee batiment bu intelligent nag mooy bâtiment yi nga xam ne ni mooy comme li ñu waxoon sànq rek avec robot yi nga dugg sa kër lamp yu fay voilà y a de choses aussi ay gadget yu bëri am na pour rendre les bâtiments intelli intelligents donc loolu mooy les domaticiens am na aussi lii techniciens d'assistance en informatique boo xoolee dañuy assister euh, ñi nekk ci biir entreprise bi bu fekkee dañoo am ay problème machine machine buy bëggee wala antivirus bu yàqu wala genre de donc ñoom ñooy les techniciens d'assistance en informatique après ñoom am na aussi lu ñuy wax des veilleurs technologiques c'est très important les veilleurs technologiques ñoom ñoom ñoom dañuy surveiller l'évolution des technologies utilisées dans l'entreprise c'est-à-dire bu fekkee entreprise bi mu ngi benn technologie ñoom à chaque fois dañuy xool est-ce que technologie boobu am na ay avancements est-ce que am na ay affaires yu ci génn bees tu vois après euh, voilà ñu ñu ñu ñu ñu proposer ko wax ko pour que nit ñi xam ko bu fekkee dañuy changer ñu changer su fekkee dañuy rester comme sa mais loolu mooy les veilleurs technologiques maintenant su ñëwee ci wàllu sécurité informatique am na des métiers yu bëri mais dama ci citer quelques par exemple expert en sécurité informatique cette personne là. moom mooy garantir sécurité données yi sécurité et la disponibilité et l'intégrité du système d'information donc moom il est très important mooy garantir sécurité ak disponibilité et l'intégrité du système d'information donc da ko war a sécuriser aar ko fexe mu disponible ku ko bëgg jot jot ko ku bëgg jot ci information yi nekk ci système d'information bi jot ko mais aussi données yi nekk ci biir système d'information bi aussi mu aar leen donc grosso modo loolu mooy expert en sécurité informatique am na aussi lu ñuy wax euh, l' analyste cybersécurité c'est-à-dire moom euh, moom day surveiller système d'information bi ndax am na ay affaires yu anormal wala wala am na ay activités malveillantes yu ci gars yi di def am na ay pirates yu dugg donc si c'est le cas mu proposer ay actions euh, ay actions pour mun a contrer affaire yooyu donc voilà loolu mooy les l' analyste cybersécurité am na aussi lu ñuy wax ne cryptologue cryptologue boo xoolee waxoon nañ cinq affaires cryptologie donc mais cryptologue mooy nit ki nga xam ne nii métier la boo xam ne nii dangay ngay sur place des codes complexes à partir d' algorithmes pour sécuriser ay données sensibles c' est à dire ñoom dañu utiliser ay codes yu complexes c' à dire pour nëbb yenn information yi ba nga xam ne nii boo ko gisee doo xam lan la donc nag ay algorithmes la ñuy utiliser ak ay calcul mathématique bon c' est très complexe la cryptographie donc ñooñu mooy les cryptologues am na aussi ñu ñuy wax des ingénieurs cloud. donc cloud moom dafa nekk loo xam ne nii aussi dafa xew donc ingénieur cloud yi ce sont des gens yoo xam ne nii ils gèrent le déploiement le stockage et la gestion des données sur des serveurs externes donc dañuy déployer c'est-à-dire dañuy euh, jël application yi di ko dugal ci yenn si ci yenn euh, serveurs yi nekk à distance di leen fa stocker mais aussi di gérer données yi euh, ci ay serveurs yoo xam ne nekkuñ ci biir entreprise mais ils sont en dehors de l'entreprise donc loolu mooy des ingénieurs cloud y aussi les hackers éthiques je pense que sànq wax naa ko donc hackers éthiques yi mooy dañuy tester euh, vulnérabilité système d'information yi donc ñoom ay hackers lañ mais ay hackers de bonne foi c'est-à-dire ñu ngi ci biir entreprise bi di tester application yi nekk ci biir application yi ndax ci entreprise bi ndax baax na walla walla baaxul donc c'est ça donc loolu moo nekk euh, métier yi nga xam ne nii grosso modo mën nañ ko expliquer donc yaa a aussi les métiers de l' internet donc boo leen internet di gis aussi euh, les métiers de l' internet y' a aussi les concepteurs web c'est-à-dire les responsables e-commerce les chefs de projet digital donc dafa xaw a nag euh, niroo ak yi ñoon cité léegi mais am na tuuti différence des fois donc si côté technique bi y' a les développeurs web y' a les développeurs de base de données y' a les consultants SaaS cloud computing y' a les euh, les intégrateurs web y' a les mooy comme li ñoon wax léegi les domoticiens y' a aussi les ci wàllum graphisme donc ñun ñëpp boo xoolee ci euh, domaine bi lañ bokk ci domaine informatique bi lañ bokk ba léegi donc y a les donc parmi les graphistes yi am na ay métiers graphiste web des web designers des illustrateurs 3D euh, am na aussi directeur artistique web donc pour les éditoriales y a aussi les webmasters mun nga am des webmasters ay métiers la des content managers des community managers même des youtubeurs même youtubeurs yi ngeen dégg nii il font partie des éditoriales donc ñoom ñëpp ils font partie de la même famille il aussi les commerciales les web marketeurs les traffic managers les responsables emailing les consultants web analytiques les commerciales télécom donc il y a beaucoup beaucoup beaucoup de métiers yoo xam ne nii mu ngi nekk ci biir informatique donc man li may def mooy essayer de vous donner euh, benn vision globale après nag vous allez sur internet vous allez dans les bibliothèques pour xool exactement pour gën a euh, seen euh, recherche pour euh, voilà am beaucoup plus d'informations mais man je donne les bases je donne les bases en wolof pour que ngeen mën a xam fan ngeen di orienté wu pour dem def seen ay recherche et tout ça donc du coup on s'approche de la fin et donc épisode bi mu ngi jeex donc dinañ defaat yeneen épisode yoo xam ne nii mooy gën a intéressant dinañ dugg nag en profondeur ci yenn aspect technologique yi ci yenn euh, ci yenn concept yi ci yenn technologie yi ci yenn application yi ci wax naka lañ koy utiliser wax aussi euh, expliquer maanaam daal concept de base yi ngeen mu ko comprendre en en wolof donc mun ngeen interagir avec ñun ci euh, ci blog bi donc mmdiago point com donc boo leen duggee foofu mun ngi am plus d'information ci activité yi may def mais aussi mun ngeen interagir avec man poser ma ay questions boo xoolee ci description podcast bi euh, lien site bi mu ngi foofu mmdiago.com mais aussi dans les réseaux sociaux maa maa ngi je partout mun ngeen voilà poser seen question comme ça on va essayer de réfléchir ensemble sur plein de choses donc du ñàkk aussi ci épisodes yi di ñëw dinañu invité ay nit donc ils vont discuter avec ñun autour de la euh, technologie ci thèmes yi ñuy def voilà donc c'est la fin de cet épisode je vous dis à la prochaine ci yeneen épisode ci yeneen thème alors on se quitte avec cette belle chanson de Baba Maal à la prochaine